maa ngi leen di nuyu man la Baytir Ndoye président écurie Yoff man fa may commencé mooy dina promoteur yi si boppam ñoom ñoo bëgg a deal ak sunu mbër yi ñoom il préfère woo mbër yi di jox si suuf mais du jàll. mun à notre niveau dootuñu affilié te gis nga wuude nu ma la gis la lay ëwale mooy CNG woo mooy ministre ñoom surtout pro ils veulent pas de nous parce que ñun on dérange. léegi benn mbër amatul trois bëre tey président écrit bi kiiwul siñewul man de personnellement dootuma signé su fekkee ne dañuy dem di leen woo di leen jox si marché yi euh, bu tabaski jotee jox leen loolu mënta tam parce que ñoom lu bu jëkkoon a léegi dafa changé mais ñun on dérange parce que ñun dañu am sunu areef lañu ay kilifa lañu am nañu yeneen liggéey ñun topp du ñoo xam ne dañuy topp mbër ñun ñooy def si mbër yi te xam nga lan pour suñu koñatax ak yooyu promoteurs yi rek on dérange te loolu mënta continuer wax naa léegi bind naa ko bari dès demain lépp dana génn ñun dootuñu affilier tant ñoom seen bopp ñëwuñu wax waxootuma Matar Ba mais président si boppam na recevoir les présidents école de lutte foofu laay waxee jërë ngeen jëf. seen mbir yi fragiliser xam nga lan la moo ñu fragiliser te seytaane xam nga moo jiitu promoteurs du keneen euh,